Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yep, nous ñu Sénégal si anam yo mieux naturelle. naturel oui bi des day wàññi tooy baax si yaram il yi a sawarloo jus bi oh. oh dina yok sen katan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nag vito soo pour fait bu monti don te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag si emballage yu civilisé te wóor ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison Kade Bignoli Waga Anda ki gens ki fepa Papam la jana nyanko Ew xana kiso nyanko Yobo xamon nyanko Do la jeka moy nyanko Bayam la jana nyanko Ew xana kiso nyanko Yobo xamon nyanko Do Dafa lew mi ngi kondo toog Ñi ko mag lay kekkantoo Nyanko Bëggu jàng booy rangu soot Ñi nee nañ dafa doog bambal ak mais ku ne lay lami sool ñanku ñanku ñanku dafa lew ba doof ñanku di luube lagalu loolu du doole nekk ci koñ bi di tooñ lekk ànd ak ndaa yaa di yoole boo koy seet fii mi ngi boor bee jaaroon na nii léegi fël fe taxawalu du toggale su papam di wax ak moom du ko faale ñànku benn kilote lay sol benn chemise sans bouton ak dënn bu ñuul tànku neen fu mu toll ak jaal bi ci suuf teg si bopp bi jaxasoo lool ndax dafa mu wax waxu nit ba nga foog ni kii moo ko tey xel bi day dem ak a dig ñànku daal léegi day way fala ma leen jaay fala ma fala ma leen jaay fala ma leen jaay ñànku léegi day way fala ma leen jaay fala ma fala ma koy may danga koy may ku mu bëgg xool ko boo xoolee nu nu mu xoolee xale bi dee nga xam ne noom na xale bi waaw waaw hee hee paate ngoog borom vocal yi xam naa ni groupe mesere bi dina la si génne sa vocal yi ngay vocal gudd na te kenn du la dagg da nga am na vocal yoo xam ne ku am xëy du ko déglu da nga am na vocal da nga koy vocal koo xam ne amul xëy mu mën a toog déglu ko waaye ku am xëy da kay koy vocal vocal yi wala kumba wala bo du génn te ci wanag bi del raxasu deng da nga ñew ne duguma ma xunu ta do ni nga may xagne mën nga tok ci ay mbolo di xasawee noonu dégg nga la le wax li ma naqar laa lay wax bëgg nga changé ma ne motax moo tax bëggatuma bokk ak ñanku ne ah waaw waaw ban nekk laa lay changé ndox ma bi bii mbaaru xar yi waaw waaw xar yi la ba nga ngay fanaanoo ay xar ma la ci su kan maa kumba man xalaatu maa di la booleeg ay xar xari xey jur fi may dégg ay onge. ah xam naa la. ñu tëdd ci kaw maa la ko mo tëdd ci suuf. lan xarin tëdd ci kaw la moo tax bëggoo fana ak ñànku. ñànku day saw moo tax nga bëgg a li ëllëg. waaw loolu feebar la dañ koy faj. Ah. waaw daa nga def lu gën a yées lu ñànku def fuuf. waaw jaana ma ko doon tëdd daal waaw jaana jaana. dégg jaana. waaw loo tee xëy. bàyyi naa atelier ba. waa kat moom nangu maa sol xam-xam. démb ak tey nga ne bàyyi na. waaw waaw. salaamaaleykum. waaw mu jël martu jox ma. waaw ma daajal. may daaj. foo martu bi ne ma teel sama loxo. waaw ma gaañu. ma bàyyi. eh eh bu ma fontoo loolu accident de travail ah. waaw mosoo sax dina teg balance am doon kuulaas for daanu jëlee fa tànk ba damm te teewul bu wéree day demaat doone maçon. ah ju. ah xale bu ko jàngal. mu ne de lu ñu lu ñu commencé. dañ lay yónni. ah kontaane. condamné ah. waaw te jamono ji góor yàlla yi seen portable yi denc xaalis condamné doxul ah. waaw waaw ah yow da ngaa nekk seen atelier ñi lay jàngal daaj condamné ok xam nga lan bul ma fontoo gis nga métier daam fooy tàmbale boo ñëwee dañ lay yónnee ngay doxi yónnee bu jékki yeeg ñu lay tegloo ataaya ah. gis nga si daaju condamné yooyu ngay daaj condamné si ngay maîtriser nu ñuy téewee pont ak nu ñuy téewee martu boo demee ba mën daaj condamné ñu doog laa daaj loo ay ban ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ba ci coiffeuse. ma laaj la. Hmm. moo ne xam-xam kan la jariñ. yow bàyyi naa. ah waaw waaw. léegi def lan. taxawaalu rek. eh eh damay lakk sa gan laa wax. boo ko lakkee du ñor. xam nga lan la Malick Coumba mën na fontoo. Hmm. bul tas sama yaakaar. fii nga ñëw yéema ab subab teel ne ma pap am naa métier. ma ne alhamdulilah rabi alamin war naa kon bi yëpp ba si dugub bi nga xam kenn fen dem naa fa nekk Malick Coumba mi ngi xëy. waaw yaa ma catu. ya catu oh. donc oh. e e ah sa doom bismillah. waxaguñ ko sax entre rek ngay war a sama nawle la. catu. léegi xam nga lan la. toogaay du am de. da ngay uti beneen métier. dama nga liggéey soudeur métallique baa nga dem nga nga liggéey mécanicien. ah soudeur damay lakk damay lakk. maçon. maçon daa diis. mécanicien. da ngay tilim. léegi ban liggéey nga bëgg budul xanaa téer baax na. da ngay ban liggéey nga bëgg def. faafa am naa kii marché benn bras. waaw xaw xaw fa bi garder douche bi. waaw faa bi mi ngi aase. waaw maaleykum. waaw mën naa def loolu. dem fan. Oh, raxa douche. yow loo xëy daa doyul nga naan si si doon dafa ah, douche. xam ñaata la fay. ah fub juróom. lan waaw fub juróom. eh xam nga lan bul ma fontoo taamul beneen liggéey. bakk yàlla xale nga bul fi nekk di garder douche sa personnalité weesu na loolu. demal si menuisier bee nga kon na liggéey. ah bakk yàlla maa la ko amul personnalité dara dara ka fa fa la mooy yow yaa koy incarné sa bopp mooy maanaam bu lay def loolu ñàkk fayda nga ne defuma ko dégg nga bu boole ñaaw ak ñàkk fayda de. Oh, maa la ko ma yàlla ko teg nattu ma oh, yàlla boole papa jox xamante ni maayin zéro. waaw mag jox xamante maayin zéro. waaw maa la foo mau marché ma ko paay ba xam dina jox maa la ko eh eh loo gal nga dem sa atelier nga kut na si liggéey laa wax bu bu ma bañee naa la fa fekk kakak kakak kakak lan kakak, bakk yàlla bàyyi bàyyi ba nga bëgg dugg rek kakak kakak kakak, ne la papa kakak kakaa. lii kakaa kakaa. lii kakaa ma jàng ko waa demal eh yàlla hmm. yàlla moo mën a teg natt de ay nit ñu immature rek la ma jox neem jur leen amul kenn koo xam ne si sama doom yi bu ma ko joxee sama xel mun na dal sa ni kii bu màggee mun naa yaakaar si man ab teg ñàkk bu bu waxee xelum nit ba nga yaakaar ne xel ma ñëw na mu daal di daanelee si waxi dof. maale kumba ma xëy na ne am na métier léegi bàyyi na ko nee na ay garde ay douze moo ko gën a jàng menuisier eh, eh, leemu ah leemu foo tollu waaw ndijaay man maa ngi fii di maa ngi fii di kii rek maa maa ngi woon mooy fi ngeen dëkkoon noon waaw maa ngi woon fi ngeen dëkkoon waaye rey ma man maa la war wax dëkkatuma foofu waaw damay bañ maa ngi laajte maa ngi laajte waaye ñi ma laajte dañ ma am na ñu ne xamuñu la waaye maa ngi nii maa ngi di dox maa ngi seen benn garab nii waa benn garab ak benn kër waa maa ko gis nii waa waa waa benn garab benn garab su ma taxawee waa léegi xam nga nag ngay def da ngay continuer mbedd moomu boo ñëw ba si la ba yoon bi sab càmmoñ ngay jàdd waaw nga jubal bo ñe ba ci cantine bu bële bi rek fofa taxaw ne kër bàyyi gerte ñu indi la. billaay jaay dama mar billahi man kay xala bu ma ree ndax Dakar fi waxon nañ ma fi mom dafa metti kër yëpp ndro ba pare nak yeen Dakar jaay fi Dakar dafa xat de fe su kay na kay ci expliqué fi ma jaar yëpp feeña kër bàyyi gerte waaw man kay xamna naa waaw xaamal ak fii am na ku ma be soo xewee nga nangul xew nga. boo xewee bilaay nijaay wax nga dëgg kay. nangul xew nga. boo xewul loolu dama ko waroon muy rab. Eh, ah, bi na nga def. maa ngi fi kër laa doon laajte. Baye Gédé. waaw. papa ñaanku. ñaanku sama xarit la. ñaanku sa xarit. waaw. Ah, moom laa doon laajte. sa faraaw. Ah. dugal ko ci fi ay sàcc rek bëri sàcc moom. ay sàcc kay xanaa sàcc. très bien. ma rapport la. man maay ndaayaan. ah. MC ndaayaan. eh. no ba daay no ma waan. très eh. di bàyyi xel. MC. moo xaaroon na ma bind ko. waxal man la di bàyyi xel. li tax ñu mooy bàyyi xel. xumaan xumaan doon man xumaan. seen la.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

léemu léemu sa loos bi baa du deñ a xaara wuy ma xaar wéqi la agresseur yi agresseur yi ah waaw nga dëgg maa ah. ah. <laughs> ah. nga def maa ngi an sa mi ngi fa <laughs> sawar rek waaw ak laatuma la <laughs> ak laatuma la yéen da ngeen def yi foo daje kii. moom andi. ah, ah. ah. si kër gi laa bu góor bi ref ça va ça va bien ko maa fi jaa yëpp ça va bien ah. ma ne ma xamoo père benn père bu ñuy wax père. comment dire. <laughs> ah yow yaa ko indi. dama ko tagg. waaw waaw sama jarbaat la. maa ak baay daa ñëw ren. pour wooral ma. waaw waaw ah. <laughs> na nga def. maa ngi fi waaw. lii la xam nga da nga nekk kër dëkk ba ma woo sa yaay ne ko ana leemu mu ne ma daanaka moom yu mu doon def yëpp daanaka wàcceel na ko na xale góor yëpp takk na soxna. dëgg la ma ne ko comme man kër kenn nekk fi. yaadoo dem na ah, kër yaayam nee na daa def foro ji tànk man a ko yow nooy bàyyi ba màggee di foro ji tànk mu ne faaw ma dem fa lay woor jeereen. dëgg la ma ne ko yabal fi leemu. dëgg la bëgg a defee ndog yeeg añ yeeg réer nga mën ma ko di toogal. billaay man kay sama xarit sax dañ ma yaane fii bi may ñëw. Ah. ndax dëkk ba dafa metti waaw fii nag fii sa kër ni jaay la lu la neex def te bëgg naa laa yor fii ba yàlla def jàmm ma gis góor gu baax ma may la ko nga sëy Dakar <laughs> ma émaayu <laughs> ah, ah moo tax ma émaay sama <laughs> fii nag ay fuddal la ni def ak ay tatouage ak yooyu. Ah. waaw xam naa après. waaw su ma miinee ba pare dëkk ba ndigaay hmm. daa metti hmm. chaque jour dañuy root ñun pompe kër. daa damm. léegi teen ba daam xale bu fa duggoon bu yàgg waaw ñu fatt ko ñu fatt teen ba léegi ñun fi ñuy rootee ah. dafa sori sori sori sori sori bu bëgg a dee fii nag fa nekk di rootee moo tax nag sama xarit yi bu ma nee damay ñëw fii waaw ñu iñaane dañ lay iñaane ma ne la fu fii nii sa nijaay la te fii doo am na robinet am na lépp waaw est teen bi ma ko ma est-ce que teen bi teen bi teen kër gi mu njëkkoon nekk waaw xam nga day wéet ñëpp a toxu nag ah xool xarit bi fi xale bi daanoo daa am xale bu fa dugg léegi ñu sëq ko ñu sëq ko ñu ne foofu ñu kenn doot fa rootati ndax wóor xale bi daa gaañu yaayam sax amaatagul ko bind dramatique léegi looy bind dramatique muy lan xale bi dees del bi loolu rek ngay bind xale bi dees del bi suñu koñ la c'est pas normal xagaree xale xale xale may ko may ko nga ne nga ne mais. Hmm. xale warul daan si teen bi. waaw xale la. waaw ba pare dox. waaw di raam di raam di raam ba si bu nga teen bi. waaw bu mu xoo. xaar xaar xale daan si teen ñaata at la am. xale juróom ñaari at. ma ngay dox de ku ma ngay dox laa. sama xale laa sama xale. jugal nga ñibbi ndaayam. de ki ni nga gan gi jugal nga ñibbi. boo indee gan ba pare danga naan gan gaa ngi nga jóg ñibbi dox bi yeneen so xam nga ba xam kii dafa wax wax bëgg a wax joo xam ne nga dégg ko. nga ne du ko toog boobu ba léegi. waaw dañu maa yóbbante si moom. waaw waaw jógal nga ñibbi. naa fi. Ah. gis ko waaw. ah kii dafa rafet. Ah. il la. il est très mignon. très ah, kii sama jarbaat la. xale bu ndaw la yeelee teel a gudd nii rek dafay ñëw pour jàppale ma day ñibbi waat du fi yàgg day dafay dafay woote rek après. fii wooye waaw. may wooye. kan laa lay may. kii. correct eh eh wuy ma ah eh, leemu da ngay correct nag dégg nga sa yi ngay def am fa yi am yii da nga koy bàyyi dëkk ba dégg nga dëkk ba sax boo fa demee léegi nañu solution nag dañ lay régler amal comportement bu baax si sa bopp ndaayaan kii man mayewu ma kii sama jarbaat la yaayam daf ma ko jox pour juste pour ma wooree fi bu koor jeexee day ñibbi dégg nga. kii ja toll na bëggante dégg nga dama nga bëgg sa àll ba. dama xanaa yow si koor gi la ëppee. lan yow. waaw xanaa kii. waaw boole ah. mu nekk sama jaww. waaw yàlla lay bindal yi boo xoolee. waaw bindal ma yow bindal ko yow. Ah. ma gis ne. Ah. waaw wa wala billa wa asama du si dama fa fas yéene. waaw koor. koor ba koor yi jeex. waaw waxuma woon sax waaye. waaw yiw gu ma si ànd rek. waaw ku saagal. waaw ma ne ku wax lu bon. waaw ma ne astafurlah. ba pare. dama saju. di jàpp. di julli. waaw biñ sama rab gàncax léegi yow miy def lu bon looy wax sa bopp. man waaw yow mu nga xamante ni foo toog yaa ngi gees ba sa làmmiñ bi damm kenn du xam looy wax looy wax sa bopp yow ah te beneen bi. kii duma ma waajuram waajuram moo am droit maye ko te nekk fi ñaareel bi mooy xalaatuma di jël yow ma nga xam tekki woo dara jàppe woo sa àdduna dul gees ak jël loo moomoon ma la jox doomu jàmbur dégg nga nga ma ko sant naa ci gërëm naa la ci jugal te nga dem àdduna yàqu na àdduna àdduna yàqu na àdduna lu ko yàqu ndaa nee na boog jabar bagale nee na du ko ba noppi dañ xaabaate naan gees maan nga amoo xaalis dëkk bi taña yow yow moom génne naa son ba ayca génne mos clip defal clip clip ñëpp waaw bage waaw ku ku génne ku sàngu xool waaw duma si wax waaw clip ko dégg clip ko da may tene tàng xool gënu gémmiñ ba pare gàtt ay wax ñaaw laa may gëmmiñ ay tàng kii kay xel mi neexul xam nga xel mi neexul kay euh, jarbaat du kuréel ah, lan mi ngi noonu nga jàkkaar lool ate demal kon ne rek ndaa sa càmmooñ sa càmmooñ waaw waaw mi ngi noonu continuer waaw waaw kay ibil génnal tëjal bu baax day gees moy ge yoy gone di jëfëndiko motax moo tax ah du jarbaat dukkure la. ok am na lu mu doon xaw da tak ñanko nak motax lu mu def baxna na. minante nga ñanko ñànko. aha ha bo ñanko ñanko sama doom la waaye gis nga daa bëgg nelaw ba nga. ñanko koor gi daa metti. ñànku wu ñay ñanko ñànku waaw ñànku ne boobu ba léegi maa ngi lay yuuxu ñànku ñànku ñànku rek nga toog foofu sa kaay nuyu sa bi mi ngi ñànku ngi nii leemu la tudd <coughs> eh, leemu ah. leemu ça va bien ça va ça va ça ne va pas ça va bien bien leemu ça va sa doom baajan la ça ne va pas naka waal ça ne tu vas ñëpp a ngi kër ga. Ah, kii sab doom bàjjan la. waaw dafa nekkoon di jàng. que daanaka lu doom doon jàng yëpp arrêté nag mu toog kër ga noonu ma daan ne ko comme kër gi kenn nekk mu ñëw fii ah, kooral nu ah. bu ko defee ndog yeeg. waaw mu toog ko mu toog ko daal. oui temps pas là. il est là. Galle ñu la jàng. comme yow rek xam naa yow jàng ta français bambara nga jàng léegi nag. nii ngeen mel ni yabante ni loolu moo jaadu na bu nekkee sa doomu bàjjen nga nekk doomu nijaayam yii moo war waaw nga jàppee comme sa bopp comme nu ngay comme nu ngay def ndaayaan ci kër gi nu nga def maali kumba si kër gi ngeen bañ a xuloo bañ a def dara dégg nga mu seer ma lépp waaw léegi nag ba ba ma yóbbu ci ne néeg ban ban nekk ban ah eh, yow doo yow doo bàyyi ba dugal la si ne nga naan nan def munoo régler sa pël gi dañagul ba tey doomu ndijaay di mboq ah mais di la may bu amul baraag la nga yor <laughs> waaw léegi koy la li nga yor moom nga bokk mu téel mu yor nga jël sa saag bi dugal ko sama néeg bi bu ma ñëwee ma xool foo dugg ah loolu si néeg xale yu góor yi la nga naa leen sama nekk la nga foog la ah. nga foog amul lan laa foog lu wax sa xalaat bu bon baa ngi nii man maa wax ko dara nga naan lu nga foog amul ñànk ko man maa bàyyiwu ngay fanaan ak jigéen si néeg dégg nga gént yu ngay gént yëpp di néeg maa li ku ma nettali na ma ko dégg te kii nag bu ko sa loxo laal de na ko seexlu. kii moom su toogee ci kër gi moom bu fi bu fi qualité bi yàlla jàpp moom. ah départ bi ñëw ko ko saa mu mel ni. nan la mel. coow li te la ma fi indi coow. anañ ah, dem nga ma ay. kan moo la yóbbuloo yaa fi yaa fi indi coow yóbbuloo wu la. ah mais alors. lan. dama la ko doon présenté mën ngaa dem. alors merci. Ndiaye fa laay toog simi néeg bi dugg simi waaw. jërëjëf Ndiaye. acca. daal la ay daal toloo sax. waaw deewal si bis bu ma ñëwoon ma daal jotali ma. yam jotali ma jotali ma day dagg day dagg defarkat bi ma nga dëkk ba. ayca demal merci. ayca. yaa ngi ko sa si sa bopp mu taatam daal sax. sa sa lim gémmi gee ko gën a rëy. sa taatu jàmbur sa bi sa lu ma nga nokk ci ci

Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyep, yep, yëpp au Sénégal si anam yo sell naturel des bi parce day y tooy baax si yaram tayit yi leen bi oh, oh dina yok seen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nag Vito soo excellent pour fête bu mënti doon te baax lool si y'a gune ak mat lépp nak nekk si emballage yu civilisé te ak jus Vito da ngeen am choix te ñu defaree ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel. disponible partout au Sénégal Vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Vito jus le jus fait maison